fu ñu mën a nekk ci goxi àddina yi fasantikoo yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu e, ñuy del siyaat ak ci rendez-vous bi ngeen xam ñu xam ko mooy fàttaliku kenn ci góoru lislaam yu màgg yi te fàttaliku dafa baax fàttali it dafa baax comme ni ko yàlla waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ne ko fàttalil ndax fàttali dafay jariñ way gëm ñi kii ñuy waxtaanee liñ xam ci moom rek loolu la ko xam ñépp xam ci moom ndax benn melo la amee woon mooy mbaax te mbaax bokk ci tur yàlla yi bokk ci melo yàlla yi nga xam ne ku ko mel moo la ko oddee mooy almarhum cheikh mahamadul mamoun ibnu maulana cheikh islami wa saad ibrahim ñas mooy wajuram bu góor kooku alam la alam kenn du ko taarif kenn du ko xamle mu Cheikh Ibrahim ku ñu xam la di nga xamee ne jant bii kenn du wane ne li jant la ñëpp xam nañ ne jant jant la noonu la Cheikh Ibrahim mer radiyallahu anhu waaye mu jur ko ak jigéen ju baax muy Seyda Fatimatu Jaañ gën a siiw ci Faatu Jaañ mooy yooyu jëm bu jigéen mu doon soxna soo xam ne ñun tuuti lañ jot ci dundam maag Cheikh Mamadou Mamoun ndax yàlla def na moom bi muy génn addina Serigne Mamoun mi ñuy waxtaanee booba ci fukki at la toll ndax moom mi ngi génn àddina 1956 sëñ 54 sëñ Mamoun euh, gane àddina 1944 loolu di fukki at moo tax moom daanaka xamul ci yaayam dara soxna Fatou Diagne moomu. nekkoon jigéen joo xam ne jigéen ji yiw la jigéen ju baax la la woon nekkoon di soxna waaye nekkoon di taalibe bokk ci taalibe yu njëkk yi bàyyi yar ko radiallahu anhu ci yaram bu màgg booba moom itam gannaaw bu mu nekkee di doomi taalibe mu nekk di taalibe bu dëggu nekk ci ngër maandey baay gis na fu bindu bind te lettre bobu ci seigne mamou law gise won am ko ko joxone bokam ko joxone bay di wax ngir ma am ci mom di wax ne mustayekati seditu ne yaakar na yaakaral na barke ci lim am seigne mamou nak yaram ak taxawum euh, magam bu baax bu jigen sayyida khadijatu gën a ñu gën ko siwé ci khadifa di ñass umul fayda umul faydatil kubra suñu wajuru Baye Mor Fati Diallo radiyallahu anhu daf daan wax ne Khady daal boo buggee xam juddoom daal moom moo maaseeg faylu bi rek waaw bi faylu bi feeñee daal ci la juddu moo maaseeg faylu bi soxna Khady moom moom itam nekkoon jigéen joo xam ne jigéen ju baax jikko ay jikko ju mag ay jikko niiru bayam ci jëmm ak ci melo ak ci jikko yëpp don ku baax ku yaatu dënn kooku moo yar sëñ Maamun sëñ Maamun xamul yaayam mu taxawu ko taxawaayu yaay man fekke naa lépp xam naa ci lu bëree bëree bëri li may wax nii euh, dara du ci suma kumba ndax non seulement ñoo bokk dëkk Medina maak moom yaroo Medina maak moom waaye ci néegam ci laa jëlee soxna bon am na lu ma xam ci moom moo yaaru sëñ Maamun taxawu ko bu baax ci njàngam nag ci njàngam alxuraanam ci daara arbaani ak itam taxawu ko ci foo xam ne way jur bu baax dana fa taxaw doom rek taxaw na ko fa surtout ci wàllu baay moom itam moom soxna soosu non seulement damay bàyyi la waaye dafa nekkoon taalibe baay waxtu wu ne dafay ñëw e, ci bàyyi di sàkkul sëñ Maamun ñaan ci moom ba benn bés sax bàyyi leen na ko li mu amoon ci wurus yëpp jox na ko bàyyi ne ko ñaanalal maamun la daan wax ba benn bés bàyyi ne ko xadi yow de yow doo tudd Lamine li doo tudd Muntaxa maamun rek ngay wax mu ne ko lamin ak ak Muntaxa su maamun taxawee dimbali leen taxawal leen yóbbaale leen lu ne jox na ko bàyyi ci alal ngir mu ñaanal suñu maamun mu taxaw ko lool bi mu tolloo ci jàng ba bi muy wattu alquran. teraanga yi nga xam ne sax ku tere alquran fii ci kër gi daañu la ko defal. dégg nga sa wajur jigéen dana ko def moom moo ko defal sëñ Mamoun bi taree alquran bàyyi ko de topp ci teg ko bët dégg nga ca sampam këram moo moom la di muy jox jël soxnaam bu njëkk di Seyda Fatou Dem yal na yàlla guddal fanam di doomu ba tey Mawlana Cheikh Xasan Dem radiyallahu anhu eh, soxna Xadi moomu taxu na ko lool ci wàllu googu ci wàllu sampal kër ba bi mu fi bàyyeekoo dem xaayira itam loxoom dégg nga ak kàddu ay digalam ak tereem mos a tegee ci moom mos a tegee ci moom. ma maa ngi ndokkeel soxna soosu moom itam di ko fàttaliku ci bés bii li may fàttalikoo sëñ Maamun ci taxawaayam bu rafet ci wetu sëñ euh, mbokkam di xaritam li sëñ Maamun jëmbal ci jëf yu baax man awma sikki ci ne. lu ci ne rek soxna si dana ci am ndax moom moo ko bokk liggéey euh, balaa may dugg ci euh, tudd sëñ Mamoun ay manaqibam ay taxawaayam ay liggéeyam damay fàttaliku rek ba tey ci biir fàttaliku ba tey ci biir fàttaliku sëñ Mamoun la loolu nekk mooy yàlla def ko ba bi mu jógee bien na mu ñibbisi ba mu nee xaayar dekkoon fa ak ay mbokkam dégg nga damay bàyyi fa lañ nekkoon ñoom ñëpp dégg nga doomi bàyyi tax yi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mu nekk ak ñoom ci lekk mu rafet waaye may wax ne eh, taxawaay boobu soxna Xadi amoon ci moom eh, seen mag di di taawu kër gi di xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim gannaaw Seydi Ali Cissé radiyallahu anhu maam di Alaaji Abdoulaye moom itam eh, bàyyi ngi nekk si mag mu mu taxawu bàyyi loolu il faut ñu wax ko parce que taarix dafa am solo nit ñi dañuy foog ne nit dafa xëy rek mel ni mel déedéet yonent yi sax am na ñu leen dimbale wala yooyu noonu alaaji Abdoulaye moomu bi bàyyi demee ba ba bay dugg si mag nga xam ne booba nim leen doon ni jàngalee génération bu njëkk ñoom uh, Baye Mbaye ñoom Baye Cissé ñoom sëñ Ousmane Ndiaye ñoom Baye Cheikh Omar Touré Baye Ibra dégg nga demet ni mu leen doon ni mu doon sonnee ci ci ci mënatu ko ci yeneen génération yi ci tegu ala bon jàngal sëñ Maamun bi mu taree alquran euh, dugg ci daara Baay Amadu comme ni ko ñëpp di defee moo amoon génération boobu waaye accès gu ma foofu accès gu ma bi ñu bi mu bàyyeekoo ci daara jooju daara Baay Amadu alaa def laay gis ne àddina bi dégg nga dafa laaj beneen doxalin changement dafa am te bàyyi fi mu ne magee na magee goo xam ne ni mu leen yaree ñoom jàngalee leen ko mu xëy na dootu ko mën ci génération yi di ñëw te alamul arab yi mu ngi commencé ubbeeku mu moom mu waxtaan ak Baye Baye ko waxal boppam eh, alaaji Abdoulaye sax dégg naa ko man ci ci mu di ko wax ne ko xale yi nañ leen nañ leen yóbbu ci ñu jàngi ndax seen jamono loolu la laaj imaam Asan radiyallahu anhu moom la moo fa jiitu sëñ Maamoun ak sëñ Màkki 1961 alaaji daay moo moo ko fa yóbbu moom ak Oustaz Barham Diop bàyyi fa imaam Assane gannaaw gi la del siyaat jël sëñ Maamun ak sëñ Makki yóbbu leen Kaahira ñu nekk fa toppatoo leen fa ay bourse ci jamaan Abdou Nasser ñu nekk fa fa lañ continuer seen seen seen njàng ci éducation euh, enseignement moderne mooy l'école yi euh, fa lañ góorgóorloo ñoom ma del siyaat ma del siaat ci ci ci ci Medina balaa maa dellu ci seen njàng ci xaayar ak yooyu ak njàngam euh, bi mu nekkee fii ci Medina di jàng ci daara Baye Amadou jàng fii euh, téere yi ñuy jàng fii funuun yi dégg nga euh, ajuróoma laxdari murshid risala ibn abi zayd al xayrawaani dégg nga asma yooyu ajuróoma mulxatul arab kitaabu tasrif laamatul afal di gannaaw loolu la leen bàyyi jël yóbbu leen misra comme ni ma ko waxee noonu ci qiyaada alaaji abdoulaye radiallahu anhu ñu nekk fa di góorgóorlu euh, boobu xaahira neexut sonn nañ fa coono bu nekk dañ nañ ko parce que wolof yi dañuy léeba dañuy wax ñu ne teraanga boo gis mi ngi sant li ma daj sëñ Mamour nettali na boog sëñ Màkki mu ne sonn nañ fa ba nga xam ne daan nañ dem ba nga xam ne sax dañ daan toog rek dégg nga ngir coono jël kenn ci ñoom yóbbu ko hôpital hospitalisé ko ne dafa feebar pour ñu leen di seet suñu mën ci am dara luñ kii ak yooyu bon yooyu yëpp pour nit ñi xam rek ne nit ki fu mën àgg tey ci dayoo buñ foog ne dafa xëy rek mel noonu mu mel am na coono yu kii même gannaaw bu mu bàyyi koy xaayre sax ba ñibbisi ba ñibbisi mi ngi ñibbisi 1976 gannaaw bu bàyyi génnee àddina radiyallahu anhu ci la ñib si pare pour installer ci réew mi pour conférence bu rëy la woon kenn desul ci kilifaay dëkk bi waaw loolu sax jur na yeneen i yeneen i yeneen yeneen i taxawaay ci tay ba ak yeneen i jotaay waaw ndax euh, man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila e ila yawmi alqiyamati safaan ba yàlla nañu ci yàlla musal mooy man sanna sunnatan euh, sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmi alqiyamati loolu ma ne euh, parce que àddina royante rek la jur na jur na jur na ay jotaay yu baree baree bari du ci Taïba rek ci Taïba ak ci feneen ak ci feneen ak ci feneen e gannaaw gannaaw loolu gannaaw jotaay Taïba boobu bi ñu bi ñu wala balaa ma agsi ci ci ci loolu sax gis nga bi nga gisee gannaaw bu Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu génnee àddina Euh, bi ñuy pose premier pierre darix bi damay wax rek ci ci sëñ Mamoun vision am ak góorgóorlum ak ay taxawaayam ak ay liggéeyam bi ñuy def bi ñuy pose première pierre bii bu darix bi ndaje bu réy la ko alaajab laay oote woon radiyallahu anhu invité ci kilifaay dina yu bari Chérif Mouhamadul Habib ibnu Seydi Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ñëwoon na ak yeneen i kilifaay dina yu bëree bëree bëri ñëwoon nañ ci waaye sëriñ Mamoune ne ma dama bëgg ñu ji benn conférence bu mag boo xam ne dañ koy sant Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop radiyallahu anhu mu defal ñu ko ci dundu baay comme moom dundu baay li ko dalee ci cinquante nangam cinquante huit cinquante neuf yëpp surtout alaakaatam dégg nga maa al alamil xaarij yi moom moo ko ànd dégg te fu ci nekk. xamna na la fa baye wax ak lam fa def deug plus lim dund ak mom fi ci dekk bi ñu sant ko conférence boobu mu defal ñuko ba tay ma ak ci tay moom ma wax deug man ak mom ak Ibrahima ñang mi dekk sam deug yalla yalla yàlla faram ño and dem ci oustad waxtan ak mom sant ko ko ci turu seigne mamoun mu ne kontaan na ci lool dana ko def inshallah ba tay seigne mamoun ne demal ma ci Baye Cissé radhiyallahu anhu ci Ali Nego, ko dañu koy ñaan bu fekkee yaramam may na ko ko euh, bu ñuy ubbi conférence bi mu ñëw baarakaal ñu ñaanal ñu yàlla ubbil ñu conférence bi ma ñëw ci Baye Cissé wax ko ko mu ne ma kontaan naa ci lool waaye man suma yaram dafa neexut fi mu nekk nii ngi ak wa xaalaban ma nii la ma ko waxee leen di ñaanal dem leen am ngeen ndigal Sall Ibrahima Diop ca guddi ga moom lañ sant conférence bi alaaji abdoulaye radiallahu anhu moo moko taqdim indi tarikh Ustaz Ibrahim mahmoud job. wax ci mom lu bare bare bare bare lo xamni ne kero sax xamuko won woon dafa joy bañ foore du def conférence bi ngir ne alaaji abdoulaye waxe lim waxe waxee fekk comme taarix lañuy wax te dugg ci li il faut ma leral ko parce que nee barham deug dafa ñew kër baye mahmoud dégg nga boo bàyyi ma ngi nekk mag tuuti moom moo fa gënoon a nekk ndaw yaakaar naa la wax e mu ne mu yéex a am takk leer ci kër ga mu ne Baye Mahmoud def reer invité invité Baye dégg nga ak muqaddam yu mag yi ñoom Seydou Aliou ñooñu ma wax noonu ak ñoom Baye Mbaye mu ne bi ñu reeree ba pare mu génne addiyee jox Baye génne addiyee jox leen oo soxna si mu ñëw yaa faat ci radiyallahu anha ne Baye ne ko kii dama koo gërëm te dafa yéex a am takk leer ci kër gi. dama bëgg nga ñaanal ko yàlla yàlla may ko fi takk ndeer mu ne bi mu waxee noonu rek mu ne bàyyi mbay daal di ne daal ay kii doom ju jigéen a ngi nii laxas ci tànk yi gis naa doom bu jigéen mu laxas ci tànk yi mu ne bàyyi ne ko sa bët bi dafa sob waaye doom ju góor ji moo jiitu rajab daay mooy wax de doom ju góor ji bi dafa sob jàll ko dégg nga waaye doom ju góor ji moo jiitu doom ji jigéen ji mu taawloo baraam dégg nga amul ñett ñaari góor la fa am muy Nafi ak baram kenn ki ma ngi fàttali ko tuddu mu jeex mu wax lolu nak wax nak niko niko baram niko baye di niko bayam jo teelee jox baye ci ñeenti at juroom at jotagut a jàng mu ne Mahamud ki dafa do bëgg lu mu joxe waaye kii jotagut la jang lolu la wax baram defa conférence bu doy war ci baye ñenti waxtu la man kenn mako enregistrer ci ma cassette de nga bañ joggé ci jotay bi bo ma ngi baye ko Qatar ma ñu telephone dégg nga ñeenti kaset la yu 60 60 minutes bi ñu waxee ba ba jotaay bi jeex ba mu jóg oustaz damay wax toujours ma ne benn conférence boobu la ma sa def yi yëpp ay répété mu ne ma abal ma ko abal ma kaset yi ma ne ko bàyyil rek ma su ma sotti la ko mu ne ma abal abal ma ko danaa danaa la ko delloo yaa ngi dégg keroog bi ñuy bi muy waxtaan ci buntu kër Cheikh Hassane dem dégg nga gannaaw bu sëñ Maamun génnee àddina dégg nga radiyallahu anhu ma di ko wax na ko su ma ko seetee ba léegi jotaguma ci mu ne wallaay sànkuwut maa ngi koy fàttali doom bi dégg nga de lu ma keroog loolu yëpp ci ay góorgóorlu sëñ Mamoun la ak liggéeyam ci biir fayda bi ak feeñal dégg nga ak taalibeem ak mbëggeelam ak cofeelam ci bàyyi euh, duruus yi mu noonu def ci kaasful albaas ci fii ci CEDEPS euh, euh, yàggul dégg nga yàggul fàttewuñ ngo muy jël ay buntu ji ci Kaashiful Albaas invité ci borom xam-xam yëpp oustaz Ibrahima Mahmoud moom ma doon wax dem na ci conférence ñoom Mame Alaye Fall ñoom oustaz Bachir Niass ñoom Mouhamad Nasir ñoom ñëpp kenn ku ci nekk nga jël benn buntu waxtaan ci ba Kaashiful Albaas jeex xaw ma yooyu document yooyu xaw ma anamu waaye document yu riche la keroog oustaz nee na sax nee na sëñ Maamun yéen ndeke seen seen seen déplacement yeeg seen tëju yëpp mosuma xam ne ci liggéey bu mel nii ngeen ne saa wax na loolu keroog moom daf daan wax mu ne euh, bàyyi baatinam ñu ñu bëri xam nañ ko ñu bëri zahiram zahiram ñu bari xam nañ ko waaye baatinam moom la ñu bëri réeree dégg nga te baatinam ñu ñu am na am na ñu xam baatinam ñu bari waaye zahiram dégg nga moom laa bëgg a feeñal man mu ne zahir si baay moom la bëgg a feeñal moo tax yëngatu yi mu doon def noonu mun ko def soit ci politique la wala ci nangam la wala ci nangam la wala ci nangam la loolu def na ci lu bari def na ci lu bari da daan wax mu ne moom mu ne moom du du jaa jaama baay la mu ne doomam yi suñ xamoon ne moom seen jaam la dañuy jël ceen takk ko ci baatam dégg nga di ko omot jëmale ko fu mu leen neexee te loolu wane na ko taay ci ay jëfam dana la ko wan dégg nga ci lisaanu xaalam dana la ko wan ci lisaanu maqaalam dana la ko wan itam ci lisaanul amalam waaw boo toogee ak sëñ Maamun rek da nga gis ci moom ñetti ñetti sifaat yi ma la wax dana ko comporté woo ci ci ci baay te li lay xamal xam nga bëgg baay sax baay moom dafa am nu ko yàlla bindee moo loo xam ne nañ teg wilaaye fële xutbaane yee fële ak la ma xamut la fële nañ ko teg fële dégg nga waaye physionomie ni ko yàlla bindee dégg nga képp ni aadama soo ko xoolee rek yow su fekkee dégg nga lu rafet rek rek rek rek rek ngay xool boo ko xool rek da nga ko bëgg ngir mi raw ko yàlla bindee ka doomu aadama waxuma nag ci biir waaye moom dafa dafa am nu doon nu mu doon dundee baay ak ak nu ko gisee woon ak nu mu ko doon xoolee te euh, noonu mu bëggee woon baay ak noonu mu ko fonkee woon ñi nga xam ne itam dañ ko jiitu ci liggéeyal baay ku mel ni ñu may noon noonu si daali Cissé dégg nga euh, xulafaawul arbaam yooyu wala ëpp nañ ko dégg comme ñooñu si daali danga nga euh, Baye Mbaye dégg nga Baye Ousmane Ndiaye Baye Cheikh Oumar Touré ba Ibrahima Fall dégg nga ba Baye Raji Mabdou dégg nga ba ci gannaaw Baye Cheikh Ousseynou yàlla yàlla yokk seen leer ñooñu gis nga ñooñu kenn ku ne ci ñoom man am na ci ñoom man xam naa fi mu leen tegoon mun naa wax ne fi mu tegoon Baye rek dégg nga ba ci Cheikh foolu leen tegoon Cheikh Hassane Dème dafa am relation ak moom dégg nga boo xam ne euh, relation euh, particulier la waaw non seulement moo ko moo moo ko jox soxna moo ko jox awom waaye dafa am yeneen yu jaar seen diggante yoo xam ne yu bari la taxoon xam naa ci dara xam naa ci dara gis nga Sidi Ali bët bi mu doon xool bàyyi rek la ko doon xool fonk ko lool fonkeel goo xam ne amul amul amul amul layo ànd naa ak moom ba tey ci Sidi Ali Sidi Aliou ool na ma ba tey dama ool ma maamul ma woo mu ñëw déeyaale nañ lu ma fekkee déeyaale nañ lu ma fekkee wut ba tey xam nga euh, moom bàyyi dafa xamoon ne kii ci liggéeykatam yu mag yi lay bokk mi ngi ko jox ijaasa bu mag bi mu jox xolofaaw yu mag yooyu mi ngi ko ko jox 1972. ci raxla boobu mu àndoon ak moom ci xartum bañ fa bàyyi ko jaar Beyrouth dem Abu Dhabi Qatar nangam nangam nangam yooyu mooy raxla boobu nga xam ne ñëpp xam nañ ko. moo ma wax ci làmmiñam ne ma ci ci Beyrouth la ko bàyyi joxe ijaaza boobu ci mbindam Kabir Fay dégg nga bàyyi signé ko waaye mu boole ko nag jox ko ndigal ci ci tur wu mag wa ci ab lim. moo ma wan la la la la la la la la bàyyi bind de moo ma ko wan dégg nga ne ko boo boo tolloo ci nangam liggéeyal nangam ji fekk àggoo ci nangam bu liggéey nangam fekk àggoo ci nangam bu liggéey nangam man wan wan wan na ma ko wax na ma loolu nee na li may wax foofu mooy mooy ijaasa boobu nee na bi mu ñëwee dégg nga yóbbu ko ci sidaali wan ko ko ne ko lijaasa bii la ma bàyyi defal mu ne Seydi Ali radiyallahu anhu def ko ne man de xamoon naa ne sa baay fonk na la dégg nga waaye nag xaw ma woon ne ak nga ak moom fii yaasa bii mu la jox de man ñi mu xam ci ñu mu ko jox dañ leen di lim bëriwuñ ñu tuuti lañ waaye loolu yëpp baay xam na dégg nga kenn ku ne dégg nga taxawaay bi nga am ak lan mooy sa sa sa sa martaba ci moom ak sa mbëggeel ci moom bi qadri ma tuxibu tanaalu am daadahu fal qawmu hada qaalu loolu la moom ci ruuxul adab bon moom xam na ci ban catégorie la ko war a teg. ni mu bëggoon Seydi Ali dafa dafa jéggi dayaw noonu la ko Seydi Ali itam bëggee woon fonk ko lool waaw xam nga euh, Seydi Ali bon euh, mooy baay baay mooy Seydi Ali naa dañuy wax ne kii nii la tudd kii nii la tudd waaye ñoom ñaar du ñaar jëm benn jëm lañ. benn lañ dégg nga ba tey sëriñ yi maanaam fonkel gi fonkel sëñ Mamour naa la wax leen loo xam ne man ba léegi daf maa dafa am benn bés euh, sëñ Mamour xëy boobu dépense këram mu ngi ci ay 3000 francs yooyu këram gu njëkk yi la nekk mu ngi ci ay 3000 francs yooyu ñu xëy 3000 yooyu të bàyyi ma ñes dama ko fàtte léegi tuuti léegi day saan moom itam ku sonn ci sëñ Mamour la ko liggéeyal la waaw liggéeyal la njabootam gi nañ ko bàyyi xel nañ bàyyi xel njabootam euh, ñu xëy mañas dugg fu trois millions yooyu të ñu toog rek séddaal yi woolu ko ne ko boori ay onze rek yooyu boobu xaw daa naaj mu ne ma mën nañ dem ñu ñëw bàyyi see dugg ci biir dégg rek génne benn enveloppe def ci 500000 ne ko dafa am benn jaamu yàlla bu mu di soxla dégg ne nee naa ko ñaanal am nga ñaanal ko wax ko bi la ko wax ne ko am nga ñaanal ko bi mu fayu ci koo xam ne da ngaa xëy 3000 tële waaw seetal seetal seetal seetal googu jommale koo xam ne da ngaa xëy 3000 tële dégg nga xamul li nga fanaanoo mu woo la nga jëw mu yëkkati mu yëkkati 500000 jox la ne la dafa am jaami yàlla bu am soxla. di ma ko ñaanaloo am nga ñaanal ko yàlla dégg nga soxlaam faju loolu yëpp dama lay wax maanaam tey ñoom mag ñi nga xam ne tey dañoo jéem jege woon bàyyi dëgg dëgg dëgg ba nekk di bàyyi fi fi fi fi fi makaana bi mu amoon ci moom dégg nga bàyyi Cheikh Omar Touré alaakaam moom xam naa ci lu bari. ànd nañ dem ci moom dégg nga maag moom ay yoon ak ñeneen yoon ni ne ma fa itam dégg nga ay taraanga ay yoon. ba gannaaw ba mu génnee àddina moom Baye Cheikhou radiyallahu anhu ñuy liggéey jumaam ji ci Serakunda jox na ma 3 millions ne naa leen ko ma dem yóbbu leen ko ma ko moom Baye Baye Cheikhou Sotou Niang dégg nga waajur la ci moom dégg nga waajur la ci moom bu nekkee doomi sëriñam itam waajur la ci moom ndax mi nga amee woon suñu yaay yaay Arsu Paraan dégg nga di wajur ndax mook euh, Yaafat Jaañ moom la wax radiyallaahu anhumaa ñoo bokk benn ndey te bokkuñu baay dégg nga eh, kooku moom itam alaaka bu dëgër la amoon ak moom mooy wax ak moom ci zaahir di wax ak moom ci baatin naka noonu itam bàyyi rafaal tam dem nañ ko si ay yoon seeti ko fa muy ñëw fii di gisanteeg moom waxtu bu ne sëñ Ousmane Ndiaye fekkuñu ko fi bay mbay xaritam la bu benn bakkan xaritam la woon lool lool lool sëñ Mamoune dan ko dis ay soxla di ko ñaan lo yalla di wax gis na sax lettre bu ko bay mbay bind momako ko wan deug am am ay recommandation yum ko ci denk diggante ak bay di ko sant pour mu bàyyi xel bay waye ba ci bir lettre ba mi ngi koy denk Abdou salam ci bir lettre ba di wax ne ko na ko xel xam nga Abdou salam mom ak sëñ Mamoune ku day ni bàyyi mbay dégg nga xam nga bu fekkoon ne amul lum mu gis ci sëñ Mamoun amul lu mu xam ci moom dégg nga du toog di ko wax naan ko maa ngi lay dégg Abdou ko bàyyi xel na ko bàyyi xel liggéeyal na bàyyi ci biir réew mi ak ci biti réew du ñu wax ci wàllu wàllu wàllu wàllu politique dégg nga bëgg gi bëgg réew mi dégg nga bëgg gim bëgg réew mi ak taxaw gi mu taxawu réew mi ci ay mawaqif yoo xam ne yu jafe la yoo xam ne jël na ci risque bu nekk parce que ba ci njëkk mooy bi muy bi muy ànd ak lay Wade di opposé Senghor loolu 1976 boobu ma lay wax am na yu ko waral duma ci dugg xam naa lépp ndax keroog ba ñuy dem di seeti Ablaye Wade man ak moom ak Ousmane Bitey mii moom itam dégg nga ci compagnon yooyu ma doon wax nga xam ne dañ nañ ci moom lu nekk. dégg maa ngi wax ci ñu njëkk ñi Ablaye Thiam ci benn génération bi rek 86 la ñëw ci ci Colobane Cheikh Tidiane moom suñu baay sëñ Mbaye Niass euh, radiyallahu anhu dégg nga moo indi moo ko présenté sëñ Mamoun ci ci Colobane ci kër euh, genn góor gu ñu doon wax Pa Ndiaye boo fa la sëñ Mamoun daanaka ñi waroon ñëpp kenn ku ci nekk mën naa laa wax la ko booleeg moom ak kañ la ñëw ci moom ak la leen boole ak loolu lu ñu néew euh, bi ñu bi ñu demee euh, toog ak wàdd loolu ci jamono Senghor la parce que 66 la 77 mu wax ak moom dégg nga boobu wàdd benn répondant rek la am fii ku ñuy wax Ousmane Diaw ngi sëy mu ngi fële ci Casenac boo gendarmerie bi da ngay jël goudron boobu pharmacie ki waa jooju seen doon jaañ nii moom ngay moom ngay gis nii këram ngay gis noonu moom la ñu boole yëkkati téléphone am woo ko ne ko euh, weetoon nga ci Kaolack mais da nga am wéete léegi ne ko sëñ Mamoun Niass mu bàyyi Niass mu ngi nii toog ci sama kanam ak ay frère am nee dafa ñëw pare pour jàppalante ñun ci parti bi danaa leen wax ne lañ jaar si te na nga leen jox seen seen gëdd bu ñëwee ñëw biñ ñëwee ba ak si Medina man la sëñ Mamoun yebal dégg fek astaghfirullah dañu dañoo ñëw jaar ci moom nuyante mom wax ak mom dégg nga mu ne na ngeen ñoo ma jox leen carte parti bi dégg nga ñu dem bañ demee man la sëñ mamoun yebal man la ko jox ma ñew dégg nga ci gatal rek alors gannaaw lolu gannaaw lolu ñu dox ci indi nañ ko fi ñaar yoon mom mom wad ñoo ko njëkk indi Medina ak ay populaire bu reuy mu metti segor naqari ko lol lol lol lool ba am na ñu ko jegee woon sax ño xamne ay responsable lañ fi ci Sine salum mu oo leen heurté leen wax ak ñoom parce que mouvement bi dafa réyoon te am doole waaw ñu ànd ak moom génnee kër sëñ Maamun dugg ci darix bi ziare ko bàyyee ko fa dem yóbbu ko ci Alaaji Ablaay mu nuyu ko waxtaan ak moom dégg nga wax ko euh, euh, kaddu yi dëgg wan ko ne ko man nag dégg nga mënuma ànd ak yow ñii suma njaboot lañ ñu ngi ànd ak yow parce que man bàyyi ma moma moma moo ma eh, sant lii ma nekk nii maa ngi ci wetu Senghor jappalante mom nangam nangam nangam nangam boobu Abdou Diouf ñëwagut dégg nga ne ko man sama loxo ci sunguf noonu la ko waxe gannaaw gi sax del ci adna fi dégg nga del ci adna fi fekk na booba Senghor dem na booba daane nañ Senghor bo Senghor dem dégg nga wala demission na dem alors ba Abdou Diouf ñew ñu indiwaat Wade mais ñun ñun booba ñun ñi ngi ci ñi ngi ci PDS dégg nga génn gi mu genn PDS ci ndigal Ablaye Ablaye la radiallahu moko ko ko demandé yombul woon sax rombul woon sax parce que nit ak principe la woon yombul woon waaw waaye def na ci ay ay ay kii bare bare bare bare ñaan ko ne ko bugguma kàddu kër gi tàggaloo dama bëgg kër gi comme yow ya fi acteur dégg nga principal ci wàllu politique dégg nga alors bëgguma ñu juyoo nguur gi bàyyi sax gisoon loolu gannaaw gi dafa gisoon ne buur même buy sa noonu sax nga war a maslaa moom rawatina buy sa xarit nangam nangam nangam en tout cas dal waxna ba nangul ko keroog waxtaan woowu ñu ngi ko ñu ngi ko defee kër euh, suñu mag suñu xarit doon xarit seigne maamu di sopem Cheikh al Aqib fa lañ ko defee fa la génné ci BDS de nga euh, sans déclaration nak gis nga ba Abdou Diouf di ñew 81 tay bañu sen boba khatab soxna mom la Abdou Diouf waxal ne ko dama dégg ne Mamoun ñess moy politique ci kër Baye ñess de nga euh, jeunesse bi yépp lay andal te daf ma opposé dégg nga mu ne ko déedéet nangam nangam nangam xataa ba ko wax ne ko mën naa fexe moom ba boo wàccee tey ba ñu seen dégg nga ci hélicoptère bi mu lay njëkk jox loxo dégg nga ñëw ak sëñ Maamun ñaan ko ko ci turu baay loo ko ñaan ci turu baay may la ko dégg nga keroog def na loolu ba Abdou Diouf wàccee dégg nga la ko jox loxo xataab moo ko ne kii mooy Maamun Ñas mu waxtaan ak moom ci la continué nag moom di intéressé wu ci sëñ Maamun moom Abdou Diouf dégg nga di intéressé wu moom def ci moom ay ay ay ay ay médiation ba eh, gannaaw bu ko sëñ Alaaji Abdoulaye ñaanee mu bàyyi de nga eh, opposition bi mu nek eh, ci le duggee nak ci parti socialiste Abdou Diouf recevoir ko de nga bam koy recevoir ci audience bobu ànduma ak mom waye bam ko waxtaanee bam mu ak mom ba pare mu bolé ko abib abib cham en tant que premier ministre ne ko abib mak mom du ñaari jëm ben lañ de nga demal nga sété ko téléphone na ko wax na ko ne ko nangam nangam nangam kérok ba muy dem ci Habib Thiam maag moomu ànd gannaaw takkusaan la ñu recevoir. Eh, day njookewee moo fa génnee rek yàlla ko yàlla yërëm ñun ñu dugg si dégg nga ñu waxtaan ak moom lu bëree bare bëri ak yee xew yëpp gannaaw dégg nga politique bi mu wax ne moom moo ko moo ko moo li ko animé woon ba mu dugg ci politique dégg nga nee na dafa gis ne kër gi dañ leen delloo gannaaw ni bàyyi toll dégg nga ci réew mi ak lim toll ci àddina bi ak lim liggéeyal Sénégal ci biir ak ci biti nga xam ne sengoor demoon na ba ko dem na la ngay ngay lamiñu senegal ngay ambassadeur du senegal fo taxaw de nga lo fa wax ci touru senegal mako wax republique be ko wax de nga malgré lool yeb taxut geud bi ñi wara jox deug deug deug deug ñu jox ñuko ko lool moko mom moko ané mom lool moko metti motax muy muy muy muy politique xeex na ci lu bari nak dindi na ci lu bari dindiwul lepp waye dindi na ci lu bari amna lu bari lu am fi lo xamne de nga barkep yëngatu politique am boobu indi ba ci yeneen yi ngay gis ni sax ba ci yeneen ndomb tànk yi nga gis nii sax gannaaw gi yi nga gis nii yëpp tey ci barke yëngatum yooyu ci la bàyyi ko ànd naag Abdou Diouf dégg nga dimbali na ko dayob dimbale daan taxaw euh, fekkee naa mu taxaw 88 élection yu métti la woon kenn du ko fàtte ci Sénégal bakkan yu bari dem nañ ci yàlla na yàlla yërëm mu doon événement yu méttee méttee méttee méttee waaw keroog ba ñuy dem Mbuur ca meeting ba bi fi Abdou Diouf doon def ci 88 boobu man ak moom ak suñu frère boobu ma la doon wax Cheikh Tidiane Seck te Niass te ñu xamee ko Cheikh Awa Seck ñoo bokk oto man ak moom ak Cheikh moomu Alaaji Padaan boobu moo koy dawalal moo ñu dawal yóbbuñu Mbour waaye kenn mësa gis loolu ndekete ñoom ñu ngi jël kër yëpp feesal ko ay ay ay nerveux waaw ñun xam man fi toog. bi ñuy présenté Abdou Diouf muy wax rek laa gis ci kanam ma gis ay vagues yoo xam ne ñu ngi puusante ak gendarme yi ma ne ko gis nga ñëwee bu ñu accès rek meeting bi toj mu ne ma yow da ngaa ñaaw njopp toog rek ne ko xalaat yow ma ne ko baax na ma gis nga ñëwee ma gisee force bee ma gisee ñuy puusante ànduñ ci lii ba ñuy génn rek xer yi dal isaat bi xer yi dal waaw Abdou Diouf sax dañ ko ëmb nii rek dañ ko ëmb rek ba dugal ko ci otoom waaw mais am na ñoo xam ne moo lañ leen dóor ñu daanu <laughs> suñu mag boobu ma lay wax Cheikh ñun suñu oto baa ngi ci kanam dem na mu yàgg ma ne ko ñun dégg nga nañ nañ dellu ci biir stade bi ma ne ko déedéet suñ suñu dee nañ dem ci oto bu ñuy rey oto bi ñu rey ñu waaye nañ dem ci suñu oto bi <laughs> yàlla def ñu ñu dugg moom yónni na moom Abdou Diouf sax kër yónni na RDK am ne ko ne ko waxal sëñ Mamoun ne ko na retourné ba mu dem Thiès fekk Abdou Diouf dafa ko dem Thiès ñëw Thiès dégg nga sëñ Mamoun ne ah kay fokk ñu dem cees parce que ni boy and ak mom da ngay ànd ak mom rek bu bu bu neexee ngeen bu nakare ngeen ànd nañ dem lu len dal dal ñu waaw ñun ñoo ci wax sa bañ bañ a retourné Mbour ñib si la xew ties ñepp deg nañ ko kenn du ko faté fa la taxawon ci stade ibamar mom Abdou Diouf discours bobu mu fa waxon te ba euh opposition beeg ñeneen ñi diko diko ko diko diko ko toñé ci kàddu gum fa waxon ko xamna def ko def ko ci deug nga bobu it mer la doon waxé ndax lam lam gis Thiès lam fa bayiko la dégg nga 88 booba wax na keroog ne abdu juuf ci benn meeting fii ci kaw Kaolack mu neex Sénégalais yi mu naqare leen moo fi juuf Abdou Diouf jeexalagut buy jeexal bàyyi dana ma ko wax waaw te waxagul ma ne jeexal na 93 fii la même chose keroog bi muy inauguré si fii hôpital El Hadj Ibrahima Niass bii dégg nga discours ba mu fa jël keroog moom sëñ Mamoun keroog wax na fa loolu maa ngi yore kaset yi fii maa ngi ko fii nee naa Abdou Diouf dégg nga mooy faluwaat 93 bii kenn mënu koo teree falu moo tax bi mu bi mu ko bi mu ko opposé biñ jotee bañ tàggoo moom moom euh, mu bokk ci membre fondateur ci AFP dégg nga. keroog ba tay bi mi dem bi mi dem di séti bi ñu ak mustapha Diass ba jubo ak mom keroog bi mi séti mustapha Diass ci kërëm ma ak mom ñoo déparé HLM ñu and dem toog ak Moustapha Diass ci guddii ci kërëm man ak mom ak mustapha lañ fa wax ñun ñett ko wax keroog waaw ñu ñett ko wax keroog wax naa Moustapha Diass keroog ma ne ko na nga bàyyi sa xel ci réew mi du neew rek la Sénégal jur du mi ngi may dégg du neew rek la yaa jàng ci réew mi ëpploo fi xam-xam dégg nga gënoo fi judd rawoo fi ëppoo fi alal waaye waxtu wu réew mi tolloo ci crise dégg nga micro trottoir yi ñuy def buñ ko tàndalee nit ñi ci kii bi buñ nekk ngeen yaakaar ne situation bii Sénégal nekk dégg nga mën nañ ko mën na ci génn ma ne ko 70 pour cent yi wala 60 pour cent yi Moustapha Niass la ñuy wax ma ne ko loolu nag responsabilité la yaa ngi créé parti yàllaa xam fu mu jëm waaye na nga bàyyi sa xel ci réew mi nga bàyyi sa xel ci yi nga xam ne loolu sax su la alors sey Mamoun lim lim def ci AFP ak lim ci daj Moustapha Niass mi di secrétaire général bi daj ko ci defu ko ci loolu la lay wax xamna xamna ko parce que fim fim ci andé fim andé ak mom ba bi bi amul benn djégo bu ci sey Mamoun ma seqil du ak mom and fu ne dem nañ fa ci biir Sénégal di bind ay lettre sax ci biti Sénégal yi ci don arab man mi ma ko dan bind di waxat wax ak jaliyat sénégalais yi na ci biti ci pays arabe